بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إخوة الإيمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ginnaaw bu nu tàmbalee ci sunu turu boroom mu ngi ñaanal sunu yenentu muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yal na ko yàlla dolli xéewal te musal ko ginnaaw loolu tey mooy sunu ñetteelu dars ci kitaabu tawxid ci aaya wa ala allahi fatawakkalu in kuntum muminin mbokk yi ñu ngi jël tey tomb boobu sunu borom subhanahu wa taala di wax ci suratul anfal muy aaya 2 innama almuminuuna alladina ida dukira allah wajilat qulubuhum wa ida tuliyat alayhim ayatuhu zaadatum imanan wa ala rabbihim yatawakkaluun ci aaya bi sunu borom subhanahu wa taala mi ngi fay melal ana ñan ñooy way gëm yàlla yi sunu borom ne way gëm yàlla yi mooy ñi nga xam ne buñ leen jàngalee lenn ci aaya yàlla seeni xol daal di yëngu ñu yëg ndollent yëg ragal yàlla yëg am na ku wax ak ñoom moo tax mu ne innamal muminuun way gëm yàlla yi allazina ñooy ñi nga xam ne iza zukira allah buñ leen waxalee yàlla wajilat qulubuhum ñu sentir ko ci seen xol ñu yëg ko wa iza tuliyat alayhim ayatuhu buñ leen jàngale aaya yàlla yi nag ne leen yàlla nee na zaadatum imanan mbir moomu daal leen di yokku ngëm ban mandarga encore lañ leen di xàmmee mooy wa ala rabbihim yatawakkaluun ñoom ci seen borom rek la ñuy wàkkiirlu duñu wàkkiirlu ci kenn ku dul moom kon aaya bi wane na ñetti mandarga ci mandarga way gëm yàlla aaya bi wane na ñetti xàmmekaay yu ñuy xàmmee ku gëm yàlla bi ci njëkk mooy suñ ko jàngalee aaya yàlla yi def ci dolleeku waaw suñ ko waxee yàlla nee na daf koy yëg suñ ko jàngalee alquran da koy dolli ngëm waaye foo ko fekk kuy wàkkiirlu ci boroomam subhanahu wa taala la kon ñetti mandarga ngoog ibnu abbas bi muy firi aaya bi nee na almunafiqun la yadxulu fi qulubihim shay min zikrillah nee na nafiq yi seen xol dara du ci dugg ci lu jëm ci yàlla nee na nafiq yi mooy ñi nga xam ne yàlla nee na du leen yokk dara ci tudd yàlla tabaraka wa taala du leen yokk tarfatal ayn mu ne ind aada il faraidihi rawatina sax nag bu ñuy joxe faratay yàlla yi duñ ci jële dërëm léeg-léeg di ngay dégg ndeysaan ci ay mbokki jullit jaamu yàlla jot ñu ne nan ko dóor mu daanu jaamu yàlla nag bu fekkee looy dóor la muy daanu doo ci jële njëriñ jaamu yàlla kenn du ko dóor mu naanu da nga koy def ngir jële ci tiyaaba jaamu yàlla da nga koy def ngir jële ci yokk jaamu yàlla da nga koy def ngir jële ci tiyaaba waaye nañ ko def te pare ci rak tak dóor mu daanu loolu moom du jaamu yàlla moo tax yàlla mu ne Ibn Abbas bi muy firi aaya bi mu ne naa féqi dey seen xol dara du ci yokk ci tudd yàlla rawatina nag bu ñuy joxe farata mu ne duñ ci sentir dara mu ne wala yuminuuna bi shay'in min ayatillah li gën a garaaw mooy naafiq yi gëmuñu dara ci aaya yàlla yi dara lañ ci gëmul mu ne wala yatawakkaluuna ala allah duñu wàkkiirlu encore ci yàlla wala yusalluuna isa gaabu mu ne bu nu fàddoo duñu julli soo gisee ñuy julli rek dañoo gis nit ñuy julli bu ñu noppee ñoom dong dong dong dootuñu julli mu ne wala yu adduna zakata amwalihim du ñu joxe seen azakay alal abadan azaka duñ ko joxe mu ne fa axbar allahu annahum laysu bi muminin sunu borom subhanahu wa taala mooy ki wax ne ñooñu de duñu ay jullit gëmunu yàlla summa wasafa almuminin fa qaala sunu borom daa di melal kon ñan ñooy ñan ñooy way gëm yàlla yi mu ne mooy innama almuminuun alladina ida zukira allah wajilat qulubuhum ndeysaan mu daa di dellu si waat aaya bi mu ne sunu borom wax na ñan ñooy way gëm yi mooy ñi nga xam ne bu leen di tuddal yàlla tabaraka wa taala ñu sentir ko yëg ne tey de dégg nañ beneen wax bu dul sa waxu nit tey dégg nañ wax joo xam ne du waxu jinne tey day xam nañ ne sunu boroom moo doon wax ak ñun moo tax sentir nañ ko moo tax yëg yëg nañ ko ndax sunu xol yi yëg na ko mu ne fa addaw faraidahu sunu yëgee li yàlla wax ak ñoom lan la leen di jural mooy ñu joxe farata yi allahu akbar farata yi leen yàlla sant dañ koy taxaw duñ ci tardel dara duñ ko manqueel dañ koy joxe comme ni ko seen borom subhanahu wa taala bëggee mbokk jullit yi hadis boobu ibnu jarir soro na ko ak ibnu abi xaatim bim nuy firil moom borom téere bi mu ne wajalul qalbi min allahi yastalzim alqiyaamu bi fiili ma amara bihi wa tarki ma naha anhu li sunu borom wax ci aaya bi ida zukira allah wajilat qulubuhum buñ leen tuddalee yàlla seen xol yi yokku nee na dëgg-dëgg yëgu xol boobu yëgu xol boobu nga xam ne xol dina ko yëg yàlla lan lay jural nit mooy ku yëg yàlla suñ la waaree ba nga sentir ne dëgg-dëgg mbir mi yëpp yàlla la lan la ñuy gis nga mel mun a yastalzim bi qiyaami ma amara allah da ngay gis waa ji muy def li yàlla santaane wa tarki ma naha anhu mu bàyyi li yàlla tere kon ndeke ku ku yëg ne yàlla wax naa ak moom ku ñu waar ci yàlla nga yokk kooku lan la war a yëg mooy dafa war a taxaw ci santaane yàlla waaye bàyyi li yàlla tere mu ne allazina iza zukira allah wajilat qulubuhum aaya boobu mu ne lu muy tekki mu ne huwa rajulun yuridu an yazlima aw an yahimma bi maasiya fa yuqaalu lahu ittaqillah fa yajillu qalb allahu akbar nee na aaya bi yàlla ne jullit ñi buñ leen jàngalee alquran ñu yëg ko nee na mooy waajo nga xam ne wala góor gi nga xam ne dafa bëgg a tooñ wala mu bëgg a def lu jaaduwut wala mu bëgg a moy yàlla bi mu bëggee def loolu am kenn ci mbokki jullitam yi ku ko laaya biir ne ko ragalal yàlla mu daal di yëg wax jooj ñu ko ne ragalal yàlla mu mu yëg mu yëg mu bàyyi lim doon def mu ne wa iza tuliyat alayhim ayatuhu zaadathum imanan loolu tamit lu muy tekki mu ne istadalla sahabatu wa taabi'un mu ne sahaaba yi tegtaloo nañ ci aaya bi ak ñi toppoon ci sahaaba yi wa man baaduhum ak sax ñi ñëw seen ginnaaw min ahli sunna ñi nga xam ne ci waa sunna lañ bokk ci aaya bi lañ tegtaloo ñu ne ngëm yàlla day yokk waaye ngëm yàlla day woññeeku lu tax alle iza tuliyat alayhim ayatuhu zaadathum imanan buñ leen jàngalee aaya yàlla yi mu yokku leen ngëm ñoom luñ ci dégg kon ngëm day yokk kon ngëm day wàññeeku comme buñ leen jàngalee alquran seen ngëm yokk ah mbokk yi suñ nee yokk loo ciy dégg wàññi suñ nee weex loo ci dégg suñ nee guddi loo ci dégg suñ nee góor loo ci dégg kon suñ nee yokk loo ciy dégg mooy wàññeeku am na mu ne moo tax saxaaba yi ak ñi topp ci ñoom ak ñeneen ñi leen topp ñoom ñëpp dañoo tegtaloo ci aaya bii ne ngëm yàlla day yokk ngëm yàlla day wàññeeku waaw bi haazil aaya ci aaya bii mu ne qaala umayr ibnu habib as-sahabi inna al iman yazidu wa yanqus umayr ibnu habib nee na sahaaba la woon mu ne ngëm yàlla day day yokk day wàññeeku fa qila lahu wa ma ziyadatuhu wa nuqsaanu waaw ngëm yàlla naka lay yokkoo naka lay wàññeekoo qaala ida zukirna allah wa xashinaahu wa zalika ziyadatuhu wa ida gafalna wa nasinaahu wa dayyana fa dalika nuqsaanuhu ndeysaan sahaaba bu mag bi bi muy wax ngëm yàlla day yokk day wàññeeku gaa yi daal di koy laaj ne ko waaw ngëm yàlla naka la yokkoo ngëm yàlla naka lay wàññeekoo mu ne waa mbokk yi bu nu waaree ci yàlla ba nu ragal yàlla lan la ñuy yëg mu ne fa zalika ziyaadatu noonu la sunu ngëm di yokkoo mu ne waaye bu nu sàgganee sàggane yàlla yàlla nekkatul ci sunu bopp nekkatul ci sunuy dënn nekkatul ci sunu xel nekkatul ci sunu lenn mu ne ñu fàtte ko ñu sàggane mbiram moom yàlla nee na fa zalika nuqsaanu loolu mooy ngëm gu wàññeeku looloo tax diggante gis nga ngëm guy yokk ak ngëm guy wàññeeku di nga gis ku la gën a mën a jaamu yàlla ngëmam day yokk ku la gën a mën a def farata yi ak naafile yi da ngay fekk chaque jour moo la ëpp ngëm wallahi te ku la jiitu ci ngëm fii ci àdduna alaxira noonu la lay rawee jàngeen histoire saxaaba yi ñu ci rawoon ci ngëm yëpp dañoo raw seeni moroom kon ngëm yàlla doomu aadama war na cee sonn rawatina lu koy yokk léeg-léeg nga gis doomu aadama yi naan sama ngëm dafa faible dama am dooful iman lan moo ko waral mooy sa ñàkk góorgóorlu ci jaamu yàlla loolu mooy tax sa ngëm di wàcc boo dul julli waxtu doo jàngal quran doo def say askar doo def benn jaamu yàlla da ngay gis da ngay wàcc da ngay wàcc da ngay wàcc da ngay wàcc ba fooy mujj ñeme ngaa nelaw te dëgg ay waxtu ñeme ngaa faat ay waxtu ñeme ngaa ñeme ngaa ñeme ngaa lu tax parce que sa ngëm moo wàññeeku mbokk jullit yi al imam mujahid nee na al iman yazidu wa yanqus moom tamit nee na ngëm day yokk day wàññeeku ñu ne ko ah mu ne waaw mu ne wa huwa qawlun wa amal jëf la ak wax ngëm ci Sénégal léeg-léeg nga dégg ku la ne gënoo maa gëm yàlla julli jot masalan nit ñi jóg di julli nga ne ko waa diw mu ne la xoolal julli rek gënoo maa gëm leen di sonal nit ñi waaye nga ne mën a fattaate ah est-ce que julli sax moom tax na di indi ay lay maanaam ngëm yàlla mbokk yi dafa boole ñetti mbir wax la ginnaaw ba nga ko dëggalee ci sa xol mooy bu njëkk da nga koy wax ci sa làmmiñ say cër jëfe ko wara yonent bi ne maa waqara fi lqalbi wa saddaqahu l amal day sax ci xol waaye jëf moo koy diggal misaal benn waaye dafa woote ne man jullit laa gëm naa yàlla ñu ne ko ah mu ne waaw waaw julli jot waajooju ñun ñi toog lan mooy ñuy wan ne waa ji gëm na yàlla mbokk yi ku may tontu ci loolu ah ca julli man gëm naa yàlla jullit laa koor jot lan mooy ñuy wan ne waa ji gëm na yàlla jullit la day woor kon ndeke ngëm du waxi kese gëm naa yàlla julli jot waaw doo jóg julli nga ne ah garaawul yàlla de xol lay fay sama xol bi mu ngi julli loolu loolu loolu du ngëm ah waaw man mun naa saraxe rek garaawul quoi man mun naa yem ci loolu gisoon naa waa joo xam ne bu julli jotee day jóg jàpp ànd ak ñëpp nit ñi di julli mu toog fee yor kurusam te jàpp na de jàpp na jàpp bu normal def na lépp mais ni yaa ngi julli mu toog fay ci benn ruq yor kurus di ñu ne waaw man mooy waaw sëñ bi kii ñu ne waaw waaw moom de wax dëgg yàlla nee na wala zikrullahi akbar nee na tudd yàlla moo gën a rëy julli moom noonu la dégg ah gis nga ko kii nee na gis na ko voilà ah voilà am ngoog kon ñi ñëpp kon mbokk yi alhamdulilah ñoom ñoom nee nañ gis nañ ko da ngay ñu ne wala zikrullahi akbar maanaam zikri moo gën a foor julli fàtte wuñ ne asalaat zikrun asalaatu lugatan addua maanaam julli sax ci zikr ndeke kon zikr dafa am ay façon am na zikr jàng alquran xaaral ma def zikr du tekkiwul rek nga yor kurus toog naan astaghfirullah astaghfirullah déedéet yenn saa yi nga ne xaaral ma def sama azkar fekk loo ci jublu mooy damay jàng alquran xaaral ma def azkar loo ci julli fekk da ngay julli voilà mais boo comprendrewul baat yi mus naa wax ak benn waay mu ne ma alquran juróom-ñaari alquran la yéen benn bi ngeen jàng moo tax ngeen bëri wax ah ma ne ko sëñ bi man de li nga wax tey tey maa ngi koy doog a dégg juróom-ñaari alquran mu ne ma waaw ma ne ko waaw bismillah limal ma ko mu ne ma quranul karim man ma mu ne neel benn ma ne benn mu ne quranun mubin ma ne ko ñaar mu ne quranan arabiyan ma ne ko nag yow arrêté bul continuer la ilaha illallah muhammad rasulullah xoolal xoolal xoolal xoolal xoolal lu muy wax juróom-ñaari alxuraan pourtant soo jàngul da nga naan wax na ñett ndax bu ne quraanul karim ñu ne waaw mu ne quraanul mubiin ñu ne waaw mu ne quraanan arabiyan ah mbokk yi loolu ñaata la te li mu wax lépp mooy alxuraan benn bi dong la benn bi kese la mais xoolal utal na ko ñett c'est parce que moom loolu lañ ko jàngal loolu lañ ko wax su ko defee noonu la ko gëmee noonu lay génnee di ko wax dof bu mu dajeel te jàngoo mu réeral la looloo tax mbokk jullit yi sunu diine waruñu ko làmbatu dañ ko war a teg fu dëgër fu leer fu ne keng sinon rek dañ ñuy dugal ci àll bi dañuy dugg ci mboy mboy gi parce que comme ñiy wax dañoo bari te ñi ci bari comme man lañ mel seen àll wi soriwut soo dajee ñoom mën nañ laa sànk moo tax sooy déglu wala ngay jàng sooy déglu déglu lu leer booy jàng jàngal lu wóor te leer te muy dëgg ngëm yàlla mbokk yi dafay yokk dafay wàññeeku comme ni ñu ko saxaaba yu màgg yi waxee ni ñu ko jëlee ci yonente bi alayhi salaatu wasalaam daan ñu koy firilee noonu al imam mujahid nee na al iman yazid wa yanqus wa huwa qawlun wa amal al imaamu shafii mu ne wa haka al ijma ala dhalika shafii wa ahmad wa abu ubayda wa gayrihim sëriñ bu ñu naan imaamu shafii nee na loolu day mbooloo la am nañ mbooloo ci loolu mbooloo moo xam ne ci ay sahaaba ak ña leen topp ak ña leen topp ñoom ñëpp gëm nañ ñu ne jàngal nañ ñu ne ngëm yàlla dafay yokk dafay wàññeeku imaam shafii bokk na ci ahmad bokk na ci abu ubayd bokk na ci ak ñeneen ñu mel ne ñoom bim ñuy firil wala rabbim yatawakkaluun ñooñu ci seen borom de la ñuy wàkkiirlu lu mu ko firee muy ay yaatamiduuna alay mu ne ci yàlla la ñuy sukkandiku mbokk yi wallahi jot nañu xam ne yàlla rek mooy mbir mi wallahi yàlla rek la yàlla mooy neex mu am yàlla mooy neex du am yàlla mooy lay neex mu sotti yàlla lay neex du sotti ab jullit ci yàlla dong dong dong dong la wala wàkkiirlu warul wàkkiirlu ci kenn ku dul yàlla mbirum wàkkiirlu soo koy wax ci Sénégal yenn saa yi dañuy jàpp ne da ngay tooñ fekk dëgg-dëgg Sénégal li ñu jàpp ci diine jàpp ne man mun naa wàkkiirlu démb dama dem dëj ba teew fa ak benn kilifa diine ci kilifa diine yi mu ñëwoon ci dëj bi mais ki jëloon kàddu bëgg a yëkkati ki faatu mu ne gis ngeen kii faatu kii toog la dénkoon boppam xam nga loolu wax ju garaaw la kii faatu kan la waroon dénk boppam kan la mais xoolal erreur bi mu def moom miy jottali mu ne dafa bëgg a màggal nag réel mu ne ndax képp kuy dund dangaa war a dénkaane sa bopp ndax loolu aaya alxuraan la man la yàlla wax kuy dund na dénkaane boppam kuy dénkay dénkal yàlla wala bu fekkee ne am na ku ñu war a dénk dénkaane gi nekk njëriñ ñàkkoo dénk nekk lor kooku yàlla kese la naka la nit nga jël sa bopp nga dénk kuy dee ku munul ku munul dara kuy feebar kuy tële ku am ay aajo ku am ay jafe-jafe ku am ay problème koo xam ne sax moo la ëppale dèjà kilifa gi ñu dénk gi muy wax ne dañ ko dénkal bi ñu demee ci armée li comme yoof la te xam ngeen yoof ay étage lañ fa tabax munul jéggi munul jéggi tabax yi ndax dafa mag mënul jéggi tabax yi ba dem ci armeelu waa ji ñi gas problème la dañ ko yëkkati ndax mënul jéggi miir yi gis nga li may wax ci catastrophe yi sénégalais yi di def tabax ay armeel parce que démb Pikine dong la sunu benn taalibe moo gaañu sunu benn élève buy jàngee sunu école gaañu ñu jëlee ko fii yóbbu ko ci armeel yi mënuñu koo suul ndax amuñu fuñ ko suul ndax armeel dañ ko tabax ba mu fees ñuy wër taxaw di wëran fu nekk bu waa ji gasee tuuti tuuti daan ne moom fii dafa am ko fi tëdd départ armée li kenn xamul nu ñuy def ba am place bu ñu suul xale te xale bu ndaw la ay 10 ans la am ay 8 ans 9 ans démb bi ñu demee Yoff nga gis loolu feddaliku armée li dañ ko tabax ba nit ñi mënuñu traverser armée li dox ndax ay étage lañ ko def étage man gis naa fa benn benn néeg boo xam ne daanaka comme jàkka ji la mel dañ ko yëkkati ba ci kaw terrasse non mais loolu te xamuñu ndeysaan ku dee ku dee ku dee lu muy doyee étage ku dee lu muy doyee tabax bu ñu karole ku dee lu ñuy lu muy doyee bàmmeelam bu ñu rafetal bu fekkee dafa dañoo rafetal bàmmeel bi fekk mu ngi safara nag ah su fekkee ajjana la nekk aussi baam man ma man a alaakulli xaal ñaar yëpp da lay wan ne kenn warul tabax bàmmeel bi ajjana ak tabax yi bu daax kon ki nekk ajjana boo ko tabaxalee bàmmeel bi perte nga xaalis bu nee safara la nekk moo gën a garaaw kon amul njëriñ tabax bàmmeel amul njëriñ xoolal nga jël bàmmeel boobu bu fekkee 200000 nga ko tabaxee wala 300000 wala 1 million tey nga defal ko ko ay sarax jëndal ko ko ay kaamil dugal ci jàkka ji jëndal ko ko ay sijaada ñu lal ko ci jàkka ji ah defal ko ko ay sarax yoo xam ne da koy fekk tiyaaba yi du jeex moo gën li ñuy def tabax surtout nag lu yàlla tere ñu jàpp ko tabax ko orné ko def ci ay fleur ah ba pare daal di bind ici reposé kan moo leen ne dafa reposé ku dugg ci biir xool ko dafa reposé mu ngi noos ici reposé wala gisu leen lool ah man de gis naa ko bind ici reposé daal di bind tur bi sax moom li ci gën a yéeme mooy waaw yal na yàlla def taw tabax Hmm.
tabax boo xam ne ay nit yi nit mën ngeen fee mën ngeen fee dund waaw tabaxal ko billaahi billaahi te moom kese moom kay am benn njëriñ benn njëriñ dañuy fo rek parce que jànguñ diine day ay yoof ay année ngi ñëw kenn doot fa suulati parce que tabax yooyu da ngay gis te dañuy jaay place bi waaw soo gisee gars yi tabax dañ koy jaay da ngay ñëw ne man dama bëgg ke- ñaata nangam 4 kilomètre mètre ñu jaay la nga dem indi sa ciment daal di tabax indi sa terrasse indi sa ñu bàyyi fii ay nit a ngi fii ci kaw suuf si ñoo xam ne ndeysaan amuñu fu ñuy fanaan ñu dem di tabax maanaam benn borom koo xam nee na nit ñi dañoo bañ ni yàlla wax ci àdduna dañ koo bañ ba dem àllaaxira yóbbu ko fa maanaam gis nga gën a lënte gi ak gën a rafet kër yi nii boo demee àllaaxira gis ko boo demee armée la gis ko da nga lay leer ne borom étage boo fa gis kon kooku këram lan la
xam nga lu bees.
étage la këram rafet na waaye koo xam ne bàmmeelam kenn tabaxu ko dafa looy looy xam da nga daan kii wala kaana la kii amul dara maanaam boo demee loolu yàlla naan alhaakumu takaasur yéen a ngi ëppalante alal ba dem ci bàmmeel yi hatta zurtumul maqaabir ba ngeen dem ci bàmmeel yi di ko wone boo demee ci armeel yi gis ko alhaakumu takaasur am am moo leen yitteel bëri lante nee na bëri lante boobu nag hatta zurtumul maqaabir ba ngeen dem ci armeel yi sax di ko wone soo demee ci armeel yi di da lay leer ne mun ngaa waat ne borom armeel bi borom alal la wallaay mbokkam am nañu alal wala nga romb armeel boobu gis benn armeel boo xam ne da ngay waat ne kii moom bi ko fa gaa yi suulee lañ fa gëj nga fekk sindax yi xam ngeen sindax xam ngeen sindax xam nga sindax xam ngeen sindax nga fekk sindax yi di gas di gas bàmmeel boobu mu leer na ne kii bi ko gaa yi suulee lañ fi gëj nga fekk borom alal bi nag bàmmeel bi ñu ngi ko defar def ci ay fleur def ci ànd cuuraay ànd cuuraay lu mu wiir ci bàmmeel ànd cuuraay kii xamuñu lu ci ci lan la nekk te ndeysaan mi ngi mel ne tey bu ñu jaaboon sa mbokk yóbbul ko yóbbu ko kaso tëj ko ah nga yóbbul ko ànd cuuraay ñu ngi ko tëj lu muy dee cuuraay ki nekk biir kaso lu muy dee cuuraay ah waaw ñàkk a xam rek sénégalais yi dañoo réer dañoo réer a réer a réer a réer a réer a réer ba tekk nag kenn nangu leen koo wax dëgg bi loolu moo tax ñu am jafe-jafe loolu moo tax ñu am problème kon doomu ndey yi jàng dars yu mel nii surtout téere bi di kitaabu tawhid daf ñuy yokk mu ne wa ala rabbihim yatawakkaluun ay yaatamiduuna alayhi bi qulubihim dañuy wàkkirlu yàlla dañuy wàkkirlu ci yàlla ci seeni xol mu fawiduuna ilayhi umurahum dañuy jël yàlla subhanahu wa taala jox ko seen mbir yëpp fala yarjuna siwaahu du ñu yaakaar kenn kudul moom allahu akbar fii ngay dégg koo xam ne xolam keneen a ci nekk kudul yàlla koo xam ne ay mbiram yëpp mu ngi ko sukkandiku ci keneen kudul yàlla koo xam ne yaakaarul yàlla tabaraka wa taala benn yoon xalaatul sax yaakaar yàlla nga wax ñun diw lañ yaakaar waaw kon sax nga dégg ku yaakaar ki ñu yaakaar lu la neex laaj gaa yi di woy di koy wala ku yaakaar ki ñu yaakaar ñu bañ lu ko neex laaj wala loo bëgg jot ko di koy woy par guddi di di di di sànni ay traak inna lillahi wa inna ilayhi mbokk yi kuy yaakaar na yaakaar yàlla kuy jël ay mbiram na ko jox yàlla waaw waaw mu ne ab julli dëgg fala yarju siwa du yaakaar kudul yàlla waaye wala yaqsuduuna illa iyaahu du ñu jublu keneen ku dul yàlla yàlla rek la ñuy jublu wala yargabuna illa ilayhi du ñu xemmem ku dul yàlla waaw waaw gis ngeen mbir yi ndeke yàllaa ko moom kenn warul yaakaar ku dul yàlla kenn warul jublu ku dul yàlla kenn warul xemmem ku dul yàlla jalla jalaaluhu wa azaka baaluhu mu ne yaalamuuna annama kaana annama shaa kaana te da leen di leer ne ñoom ñooñu yàlla subhaanahu wa taala lu mu bëgg rek loolooy am waaw ndeysaan moo tax gis nga jullit sonnul soo génn dara di uti dara nga dem am ko looy wax alhamdulilah xam ne yàlla la nga dem nga ñàkk ko te xam ne yàlla moo la ko xañ doo sonn waaye xoolal tey am na ñoo xam ne bu ñuy uti dara bu ñu xëyee suba di jug génn ñu gis jigéen dañuy dellu dañuy taxaw am ñoo xam bu ñuy xëyee daje góor dañuy taxaw man dëkk naa koo xam ne day jaay marché fajar gi yàlla daf koy natt chaque jour day mbëkkanteeg man bu ma nee cëpp dugg bayaal bi seen ko mu taxaw moom day taxaw du ñëw su ma su neen tëll ba ci digg bi mu seen ma ma ñëw day delluwaat ba ma comprendre ne kii dafa bokk ci nit ñi nga xam ne day naan buy xëy du daje góor moo wax ko xale yi ma àndal ne leen gis nga kii ñu ne waaw ma leen day bañ a daje góor ñu ne ma ah ma ne waaw benn bis lu ko yàlla nattoo ma jiitu xale yi xale yi nekk sama ginnaaw man romb naa ko mu ne tëll daje xale yi mu taxaw xale yi taxaw wallahi alazim dem naa ba yegg école ba ba ma ubbi bunt bi commencé defar bagage yi te xale yi ñoo may dimbali gisuma leen ma ne waaw ñii ñii anañu ma génn ci bunt kër gi gisuma kenn moom ma ne kon ñu am na lu leen dal ma ni ñu am na lu leen dal ma ma waaxu tànk yu dëgër jëm ci bayaal bi mu ni tëll seen leen ñu taxaw ñu gis ñu gis ma di ree man leen lan la ñu xool maire bi xool ba ma ne waaye ji ne jaar leen nii waay noonu laa leen buubee bu ma leen ba mu- ba ñu romb ko mu mu mu doog a continuer ah naaj na xoolal loolu am na ñoo xam ne bu ñu dajee yooyu it waaw xamoon naa ne sama mbir mi tey du baax kii commencé la indi nangam fekk yàlla la du kenn ngay dajeel sa mbir baax du kenn ngay dajeel sa mbir bon moo tax jullit jullit du perte soo amee ngëm dëgg doo perte ndax da ngay xam ne lu am yàlla la su neexee yàlla la bu naqaree yàlla la boo wéree yàlla la boo feebaree yàlla la waaw ndeysaan kenn ci kilifa yi dafa feebar gars yi ne ko ñëwal la docteur bi mu ne moo ma feebarloo ñu ne ah kan la mu ne du mooy yàlla wa isa maritu foofa yas fii nii su ma feebaree moo may faj loolu la Ibrahima waxoon mu ngoog ñu wala docteur mu ne moo ma feebarloo waaw moom kay lu bari la moom kay du boobu rek moom kay dama ne la ñun li ñu nekkee kon nañu xam ne annama shaa kaana yàlla lu ko soob mooy am wa ma lam yasa lam yakun wallahi lu neexul yàlla du am billahi wallahi taala mbir bu neexul yàlla dañuy sonn mais du am waaye bu neexee yàlla kenn mënut a fexe ba du am loolu nit war a dal mu ne wa anna al muttasifu fi mulkihi wahdahu wa annahu al muttasifu fi al mutasarrifu fi mulkihi moom yàlla subhanahu wa taala nguuram gi moom dong moo ci soppeeku di ko def lu ko ci neex fii ñu toll nii guddi lañ nekk wala bëccëg ah guddi lañ nekk xam ngeen ne ñii ci stade bi bu leen sooboon tey ji bu ñu leen waxoon ban heure ngeen bëgg stade bi nekk lu ñuy wax bëccëg lu koy waral lan moo leen di woon loolu lan la leen di woon ne ñi bëgguñu woon guddi jot lu leen koy woon lamp yi waaye dañ cee mënu dara moo tax ñu taal lamp waaye bu leen neexoon tey bu fekkoon na ñoom mën nañ dëgg dëgg dëgg dañ naan xoolal gis nga guddi du fi am tey kon nag gis nga yàlla kan la fiy neex tey yàlla indi bëccëg moom muy indi guddi hmm? namrud bi ko ibrahima bëggee daaneel pour wane ko doo dara waaw mu ne ibrahima kuy sa borom mu ne ko yàlla lu muy def mu ne ko day mooy dundal mooy rey mu ne ko moom man mën naa loolu mu dem jàpp ñaari seex rey kenn ki ne kenn ki baal naa la mu ne gis nga kii ma rey naa ko kii dundal naa ko Ibrahima ne ko sama borom mooy jëlee jant bi penku indi ko sow bu ko indee sow jëlee ko foofu nga indiwaat ko problème daal di am ah mu nga kon yàlla subhanahu wa taala ay mbiram moom dong moo ci def lu ko neex keneen munu ci dërëm ku mu neex mu dundal la ku mu neex mu rey la ku mu neex mu may la wërsëg ku mu neex mu xañ la su ko neexee guddi am bu ko neexee bëccëg bu ko neexee mu yàgg bu ko neexee mu sedd bu ko neexee mu tàng kenn mënu ci dërëm moom yàlla subhanahu wa taala wal maabudu wahdahu la sharika lahu moom yàlla moomu dong lañ war a jaamu waruñu ko dendalee kenn wala lenn mbokk yi kenn wala lenn dara la munul billahi kenn wala lenn dara la munul koo fi yaakaar ne mën na dara mu ngi ak ay aajo yu dul jeex waaw yàlla rek subhanahu wa taala mooy borom mbir yi mu ne wa fil aaya wasfu lmuminina xaqan bi salaasa maqamat min maqamati l ixsan aaya bi ñu jàng léegi-léegi mooy innama almuminuuna alladina ida zukira allah wajilat qulubuhum wa ida tuliyat alayhim ayatuhu zaadatum imanan wa ala rabbihim yatawakkaluun nee na aaya bi sunu borom melal na fa way gëm yàlla yi ci ñetti taxawaay ci taxawaayu rafetal yi taxawaay bu njëkk bi mooy lan alxawf way gëm yàlla ku gëm yàlla day ragal yàlla ñaareel bi mooy lan mooy ziyaadatul iman seen ngëm day yokk ñetteel bi mooy lan wa tawakkulu ala allahi wahdahu ak wàkkiirlu ci yàlla kese gis nga aaya bi yàlla way na wax na way gëm yàlla yi jox leen ñetti melokaan melokaan bu njëkk yàlla nee na foo leen fekk dañuy ragal yàlla ñaareel mooy yàlla nee na foo leen fekk seen ngëm day yokk ñetteel mooy foo leen fekk yàlla rek lañ gëm gëmuñu keneen yàlla rek lañ jox seen mbir keneen yu seen yoon nekku ci ne wa haadihi al maqamat taqtadi kamalul iman nee na ñett yi mooy wane na waa ji ngëmam mat na ñett yi ku mu manqué ci yow sa ngëm des na ñett yi ku ko am sa ngëm nee na keng mu ne wa husulu amal al batina wa zahira nee na ñett yi mooy tax loolu ñu naan jëfi biir ak jëfi biti mooy tax nga wéral ko maanaam ñett yi ku ko am sa biir day set sa biti day set ci biir ak ci biti ay yem ndax lan ndax yàlla fa nekk mu ne misaalu zalik assalaa mu ne su ma leen di jox misaal boobu dama leen di jox misaal ci julli فمن أقام الصلاة وحافظ عليها وأدى الزكاة كما أمر الله استلزم ذلك العمل بما يقدر عليه من الواجبات وترك جميع المحرمات كما قال تعالى إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر ولذكر الله أكبر mu ne sunu borom subhanahu wa taala joxe na misaal bi ci julli nee na fa man aqama salaa képp ku taxawal julli wa xaafaza alayha mu sàmmante ak julli ni ko gis nga julli dañ koy taxawal ba pare sàmm ko waaye doo yem ci loolu mu joxe azak comme ni ko yàlla santaane nee na loolu lan la koy jural mooy istalzama zalika al amal bima yuqaddiru alayhi min al waajibaat nee na day war ci moom nag gis nga waa jooju nga xam ne dafa jo taxawal julli joxe azaka da ngay gis muy def yeneen jaamu yàlla yi nga xam ne moo war ci kawam dañuy gis mu koy def waaw mbokk yi koo gis muy julli di def va-et-vient dem jàkk di julli est-ce que ci julli kese nga koy nga koy gis mu yem ci jaamu yàlla bu jotee bu koor jotee da nga koy gis yenn saa nga gis ko muy saraxe yenn saa nga gis ko mu yor téere di jàng alxuraan yenn saa nga gis ko mu ngëbb ay baaramam di tudd yàlla parce que da ngay gis mu mu jaamu yàlla yeneen yi day yomb ci moom c'est parce que lu tax biiram ak biteem yépp sunu borom subhanahu wa taala setal na ko waaye da ngay gis moom waa jooju wa tarki mu bàyyi jamiil muharramaat mbooleem li ko yàlla subhanahu wa taala sant ndax lan ñettam yee yépp wér na li ko yàlla tere sunu borom nee na inna salaata julli naka julli tanha dafay tere anil fashaa'i lu bon wal munkar ak lépp lu ñu sib jullee ngoog su fekkente ne gëm nga yàlla yaa ngi julli niñ la ko sante jullante woo defoo ko comme sunu julli yi këpp këpp wala loolu gaa yi naan rak tak dóor mu daanu defoo ko comme noonu da ngay gis julli di la teree def lu bon julli day tere nit def ko lu bon su fekkee julli na li ma waxoon sànq aaya baa ngi nii wala zikrullahi akbar tudd yàlla moo gën a màgg léegi nag gis nga comme aaya bi ni mu wax ne inna salata tanha ani fashai wal munkar wala zikrullahi akbar nga dégg ci benn dof boo xam ne danaan ah ndeke tudd yàlla moo gën a màgg julli moom foofu lay bàyyee julli complètement daal di bokk rukkam fële su julli jotee du julli yor kurusam naan day tudd yàlla fekk xamul ne julli ci zikri yi la bokk waaw jàng alxuraan ci zikri yi la bokk tudd yàlla ci zikri yi la bokk kon mbokk yi lii mooy sunu dars tey ñoo ngi ñaan yàlla subhanahu wa taala mu nangul nu ko ñoo ngi ñaan yàlla subhanahu wa taala njie njuumte yi mu jéggal ñu ko asalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh